def dañuy euh, continuer ak suñu deuxième thème ginnaaw bi ñu jàllee ci sécurité routière bi alors euh, fan yi passé rek euh, on a eu des nominations des nominations yoo xamante ni woote woon nañ fi appel à la candidature en tout cas euh, là on parle de wax waxeet par rapport ak euh, li nga xamante ni moo di nomination yi ak i tamit poste de de direction euh, générale yi est-ce que tey jii nii le premier ministre ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye nekk président de la République placé nañu seeni nit déjà on parle de wax waxeet est que vous êtes d'accord pas du tout pas du tout man je ne suis pas du tout d'accord et ça me fait sourire wax waxet bi parce que il faudrait euh, expliquer pourquoi wax waxet. et surtout il par rapport pas... Euh, à la candidature. oui mais appel euh, effectivement. wax nañ que dinañ def appel à candidature le premier ministre l'a dit mais il faut aussi que ñu wax ce qui a été dañuy def appel à candidature pour tous les postes dañu def appel à candidature pour certains postes. et ces postes là ne sont pas encore définis. donc il faudrait que aussi euh, ñiy def effort d'explication boobu sénégalais yi comprendre ko euh, wax waxeet amu ci euh, je pense que dans les prochains jours dinañu définir postes yooyu décret pour wax postes yi dañuy def appel à candidature dinañu aussi ban plateforme lañ koy defee ci yan anam règles yi leer que les sénégalais puissent postuler léegi nag je pense que li xew warul jaaxal kenn parce que boo xeexee ba jël réew euh, il est tout à fait normal que nga gouverne avec tes hommes et tes mm. femmes de confiance. Mm. Euh, actuellement nomination yi c'est ça qui a été fait le le le premier ministre et le président dañu nominer des hommes et des femmes de confiance yoo xamante ne ils ont des compétences avérées pour postes yi ñu leen jox. et je pense que loolu warul poser problème. est-ce que loolu forme récompense la pour les. militants seen absolument pas parce que ñun mm. xamuñu récompense. Mm -hmm. Euh, au contraire dañuy euh, xeex contre xeetu gouvernance yooyu noonu récompense ñun lu ñu xam mooy euh, privilégier la compétence l'abnégation l'envie aussi de se battre pour ñu réussir projet bi l'envie de se battre pour que Sénégal change pour transformer Sénégal et en tout cas man profil yi ñu nommé je les connais très bien c'est des compagnons de route c'est des patriotes yoo xamante ne euh, ils se sont battus pour que projet bi euh, mu survivre mu réussir donc aujourd'hui s'ils sont nominés c'est c'est ils sont tout à fait capables de réussir leur mission te man li may wax sénégalais ñuy déglu mooy il ne aussi juger nit ki euh, sur voilà nommé nañ ko il faut voilà des actes vont être euh, mm-hmm. menés il faudra juger ñi ñu nommé sur les actes je pense mm-hmm. que de toute façon jamono bi tey les sénégalais sont devenus tellement exigeants que bu résultat amul assez rapidement dinañ ko faire savoir donc dañu am tey obligation de résultat et je pense que góor yi ak jigéen yi nga xam ne tabb nañ leen dinañu def très rapidement des résultats là-dessus moom euh, soxna Yacine il faut être très clair wax wareet amu ci euh, récompense amu ci il s'agit juste de gouverner Euh, avec ceux qui ont porté le projet PASTEF mmh, jusque-là. Mmh. Alors, est-ce que euh, appel à candidature Bob, c'est faisable pour toutes les directions peut-être Pour certaines, pour Tout certains simplement. postes. Donc ça veut dire il y a une direction, mmh. c'est très faisable. Mhm. Moi, je ne vois pas pourquoi ce n'est pas. Il faudra juste n'y patienter euh, que Premier ministre ak président définir poste yooyu yan poste la et que ñu définir aussi les règles d'accès à ces postes-là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce sera transparent. Mhm. Euh, dina leer. Sénégal yi bëgg a postuler dinañu postuler. Mm-hmm. et euh, voilà eggaguñ ci mais. nous si jamais on a des éléments de Benno yoo xamante ni ils acceptent et offrent peut-être de meilleurs profils. je je je pense que premier ministre ak président bu ñu nee dañuy def appel à candidature il s'adresse à tous les Sénégalais. Mm-hmm. tous les Sénégalais qui sont compétents qui peuvent euh, travailler je pense pas que dinañu aller dans le fond des choses pour dire qui Benno la qui voilà maintenant. am na ñoo xam ne effectivement waa Benno APR et d'autres personnes ñu nekkoon au au au aux ñoom ñoo doon diriger réew mi effectivement parmi ces personnes là si yaa am na ñoo xam ne bañ leen dénkee alalu réew mi defuñu fa lu normal wala defuñu fa ñu jub y a des rapports de contrôle qui sont sortis bien évidemment que ñooñu duñ leen bàyyi ñi ñi ñi ñi diriger waat euh, ay postes yoo xam ne dañuy yoraat alal réew mi hmm. loolu je pense que c'est évident te mën nañ ko comprendre donc effectivement appel à candidature mais bu defee appel à candidature tu recueilles des CV tu recueilles des compétences di nga xool quand même dans le lot. Mm. voilà euh, ñan ñoo mën a euh, euh, convenir pour tel poste ou tel poste et évidemment bien sûr il y a des gens yoo xam ne peut-être ils seront écartés parce que euh, ils devront peut-être répondre euh, devant la loi wala justifier. Euh, lan la ñu def bi ñu leen dénkee alalu réew mi. ça va de soi. alors cher Sadibou ban jàngat ngay am ci nomination directeur général yi euh, tout azimut waaw man euh, damay féliciter ñi ñu nommé ñëpp. Mhm. mention spéciale à Pape Alé Niang. bu nekkee ni man mosuma partager sa façon de se battre. Mhm. mais dafa mériter liñ ko nommé contrairement à ce que disent certains Sénégalais. alors damay lire pour public bi. Pastef li ñu waxoon ñoom ci appel d'offre bi je cite nous consacrerons l'appel à candidature pour certains emplois de la haute fonction publique et du secteur parapublic ñoom loolu la ñu waxoon ci haute fonction yooyu man lii damaa jàpp rek ni discours politique la woon ndax ci haute fonction yooyu mënoo ci génne direction port autonome de Dakar le port est une mamelle de notre économie. ça ça ça, ça se discute. je vous laisse terminer madame bàyyi ma ma rek madame le port li muy dugal ci impact financier. Mhm. yaakaar naa en toute objectivité mun nañ nangu ni que dafa bokk ci haute fonction publique yi wala parapublique. deuxième remarque bu ñu waxee lii ba pare jël direction domaine ak tout la gestion de nos terres la indi comme scandale que ce soit dans le régime de Wade wala dans le régime de Macky yaakaar naa ni haute fonction publique la pour le reste awma lu ma ciy wax mais dama jàpp ni ñoom ñi nga xam ni tànn nañu ñii donte waroon nañu quelque part ak li ñu waxoon c'est de bonne foi la ñu tànn ñi et c'est des Sénégalais de compétence avérées et de probité morale irréprochable e que in liggéey bi ñu sant dinañ ko def te yaakaaru askan bi du ci tas loolu laa jàpp beneen bi nag mooy compétence yi je prends un exemple comme ça yaakaar naa ni tey directoire bu direction bu mel ni la soleil ku mel ni Serigne Saliou Gueye mérité na ko man loolu laa gëm man ak moom jubóowuñu nag laaj leen ko non laaj leen ko mi ngi nii sax chaque jour ci xuloo la ñu dëkk maak moom. mais jàpp naa ni jàpp naa ni. mérité na mérité na tey pour ñu jox ko direction le soleil. Hmm. et bu ñu ko ko joxee du récompense. du yàgg na ci. bi may interdire de fan nga nekkoon boobu à l'époque bi may ñëw ci la fekk baobab. boobu maa ngi témoin. témoin. Hmm. loolu c'était su wadd. su wadd la woon hmm. kon. yàgg na ci li muy def nii. alors Pape Alé aussi ci même canevas bi la que Serigne Saliou Gueye. maintenant nag seen lii ngeen waxoon haute fonction publique bii moom da koy seetaat nangul naa leen ko nag parce que pour man euh, mooy li ma doon wax sànq ak benn kilifa ma ne ko ñu may la jabar nga jël ko mu doon jànq nga kontaan waaye yow kont kontaan boobu loo ci nga ni da nga bëgg mu mu wasin léegi am doom bu góor léegi loolu nag mënuñu ko exiger quand nguur gi ce serait trop demandé mais quand même dans le discours je suggère juste ngeen xoolaat lan ngeen di wax sénégalais yi parce que sénégalais yi fi mu nekk yéen ay régime bi nar a gën a mettile parce que attente yi ñoo wax naa ko fan yële ci benn émission ma ne biñ leen falee yaakaar dafa judduwaat yaakaar boobu jàpp naa ne du ngeen ko tas